je pense que première question bi posé nga ko déjà hmm. amuñu luñ ci teg donc euh, suite à l'information bi nga xamante moom nga doon wax léegi muy euh, libération de euh, Diomaye Faye hmm. ak Ousmane Sonko bi nga xamante ne yéen yéen a bokk fa nga xamante ne langue gi ngeen bokk lan mooy sa première réaction par rapport à cela balay boobu vraiment c'est maa ngi tuñ tooñ buuba sànq ma ne ko yow joxuloo ma suukar koor de ndax kàngam yi ma booleeg grand journaliste Eh. Euh, ci jamono ji ci weeru koor wi c'est pen un cadeau euh, mbégte lañ ci am parce que ñun ñëpp jàppoo lañ ne Ousmane comme Bassirou Diomaye Faye liñ leen togoon du yoon dañ leen a teg doole dugal leen ci kaso bi mais tey dëgg ñëw na ba président de la République la loi loi d'amnistie générale pour gagner leen de ñu ci le am euh, parce que nous quand même le en 1994 les événements de février pendant quatre mois et demi nous avons Abdoulaye des ñu événement bu mel bu njiiraan bu mel nii télévision yi amut ak radio yi Sud FM rek mo fi euh Reine Marie Faye doon ko couvrir c'était un grand événement mais Ousmane Sonko c'est une particularité parce que dafa am lu ko yàlla defal lo xam ne peut-être béyul ci homme politique yi euh, particulièrement moy soutien bi nga xam dañ koy apporter même sur le plan financier ça nous l'avons jamais vécu en tout cas maa ngi leen wax sama mbégte di masawu njabootam di masawu waa Pastef yëpp ak allié yi te ñëpp kontaan nañ te am nañ yaakaar ne seen génn ci prison bi dana indi dana indi dal ak jàmm ci Sénégal parce que réew mi jàmm rek a fi xew moo fi mën a am jàmm la ñu bëgg ñun ñëpp parce que li wolof wax jàmm ci la lépp xaj réeroo yi fi amoon yàlla na ko yàlla teggi euh, ba élection yi ñu jublu ñu def ko ci jàmm ak salaam vraiment ñu fàtte lii parce que politique nag moo mel noonu mm-hmm. mais yi dañ ko war a dépasser démocratie war na dépasser lu mel nii ci Sénégal ci ay yoo xam ne yi amul solo ñu jël ay leader di leen tëj et cetera loolu lépp day tardé réew mi ko yaakaar naa ne buñ jógee ci affaire Ousmane Sonko bi ak Bassirou Diomaye Faye ak xale yi nga xam ne yu bëri dekk defoon nañ leen ci kasu bi euh, ëllëg si biir ki nga xam ne mooy toog ci réew mi yooyu yëpp dañ ko fi dindi ba mu am vraie démocratie euh, parce que Sénégal loolu lañ ko xamee mm-hmm. merci donc ngoog donc loolu mooy tontu bi ci réaction wu euh, président Habib Sy jëm ci euh, génnuk kasso bu Ousmane Sonko ak ki nga xamante Bassirou Diomaye Faye bala yenen question yi euh, bi campagne bi wala bi candidat yu jógee ba tay secteur beau mënti dem ñu ngi leen di xaar ba ci nappkat yi dégg naa ñamit ñu ngi xaar candidat yeeg seen campagne. effectivement secteur bo bo là